a def seen développement jeu vidéo ñu si loolu aussi dañoo ut ñi nga xam ne ñoo leen jiitu si métier bi mën leen jàppale mën leen gindi si lépp li liñ mën a def ñu woo leen ñu nekk seen wet di leen gindi di leen jàppale ba ñu mën a def seen seen projet yi li ak formation bi nga xam ne mooy game design nga xam ne amul Sénégal euh, def nañ en sorte out formation boobu indi ko fii am mentor bi nga xamante ne moo leen topp durant six mois yi jàppale leen ba ñu mën a jàng lan mooy game design Euh, loolu nañ def ci Game Hub et damay profiter aussi pour wax nit ñi ne leen ñu jënd jeux vidéo yi jeunes yi defar parce que def nañ ci temps bu bëri def nañ ci effort bu bëri donc suñ jëndee jeux vidéo da leen di jàppale jàppale Sénégal jàppale industrie culturelle et créative. durant ces six mois dama doon dama doon développer ay jeux vidéo euh, amoon na solo trop parce que ñun début bi dañuy incubé woon euh, incubé ñu ñu def benn concours ñun ñun lañ ci choisir et par conséquent ñun dañoo jël. six mois yi ñu jëm si gëstu bu baax am nañ xam-xam bu bëri et que xam-xam boobu amal nañu njëriñ bu baax parce que daf ñu permettre ñu nekk ay entrepreneur non seulement nek ay entrepreneur mais également nek ay créateur de jeux vidéo début bi ñun bu ñuy dugg sax enjeu yu ngandé sax amuñu ko won parce que dañ doon xalaat né gisuñu won parce que dañ doon xalaat né jeux vidéo peut-être amul fi ben doole bu bari bi Sénégal mais après dem nañ ba gis né nek am na njëriñ bu bari bari amna solo bu bari bari si aduna bi instant bi ni so xolé Sénégal bokku na si sax pays yu gëna a tuuti yi nga xamanteni ci ñoñu euh, duñu euh, bénéficier wu dëggantaan ci xaalis bi nga xam ne jeu vidéo mu ngi koy joxe léegi nag il faut que investisseurs yi yeeg investisseurs yi ñi nga xamante ni si dañuy joxe seen xaalis ci jeu vidéo ñi nga xamante ni si aar la yëngu je préfère ñu joxe xaalis bu bëri ci jeu vidéo bi pour que mu gën a mën avancer déjà soxla dañ soxla dañ ndimbal yu bëri déjà investisseurs yeeg parce que jeu vidéo nekkul création bu yomb

du góor kese ndax dañoo taamu jigéen ñi d'habitude duñ nekk di fo ñoom ñooy nekk si kër gi jàppale seen yaay yi ak yu demee noonu góor ñoom ñoo gën a taamu nekk di football am jot bi léegi jigéen ñi tamit buñ duggee si biir dinañ xam ne ñoom tamit am nañ fi place du puur góor kese.